mbokk yi ni ngeen ko gisee ñu ngi dugg fi nga xam ne moo di Galle Manda gis ngeen welcome bi nga xam ne welcome bi nga xam ne ñu ko jox Khalifa Sall gis nga waa Galle Manda ni nga xam ne rek ñu ngi koy jëlee ki nga xam ne moo di euh, Khalifa Sall gis nga rek euh, nu gaa yi di ñëwee ngir rek du ko rek jël mooy noonu ñu ngi dugg fi nga xam ne moo di Galle Manda ginnaaw ba nga xam ne jóge nañ foofu gis ngeen gis ngeen. gis nga rek ñu ngi gars yi ne lañ ki nga xam ne mooy Khalifa Sall fii ci Galle Manda gis nga rek ñu ngi fi dugg ci ak caravane bi ginnaaw bañ jugee fële sa Siyaraar dugg ci fii nii ci Galle Manda ñu ngi fi yegg si rek ba juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri simili simili sënkam ci len dugg fi ci manda gis ngeen téru bu djegi dayo bi nga xamné ne waa manda téru nañ ko ko limu lendem lendem ak limu mu guddi guddi xaar nañ ko ci yoon bi ba mu ñew ñukoy gungé di dugg ak mom ci biir dëkk bi gis ngeen rek ñi ci kanam ak ñi ci ginaaw ak li nga xamné ne rek moy téru bobu nga xamné jël ñu koy amal gis nga rek gis noonu rek ñoo ngi noonu di rek teeru xalifa teeru bu jégg dayoo bi nga xam ne ñu ngi ko koy jox moom xalifa ak i ñoñam gis nga te ay ndaw rek a fa nekk euh, mu lay wan ne ren seen caravane bi message bi mi ngi itam ci lu bari ci ndaw ñi ndaw ñi ñi ngi gën di di wuyu ki nga xam ne mooy rek honorable Khalifa Sala PDOIS gis nga rek gis nga rek ni mu gis nga rek ni mu demee ak lépp loo xam ne gis nga Khalifa ak ni ko rek gaa yi toppee gis nga gis nga rek yuuxu yi niñ koy teroo mbégte mi mbégte mi nga xam ne rek ñu ngi koy am ngir and ak mom gis nga rek numuy demé ñi ngi fi ci galé Manda gis nga wa galé Manda ni ñu téro rek convoy yu bi li nga xamné moy sen caravane bi ñu tuddé ko système change nationwide caravane to Gambian talent TV ci ak yeen gis ngeen ñu ngi koy wéyal affaire bi yow la kenn duko dindi gis nga rek yaa ngi gis ndaw ñi niñ ko toppee rek mooy noonu gis nga rek mooy noonu rek gaa yëpp a ngi ciy topp di dox gis nga PDOIS system change Caravanto 2021 ñu ngi fii ci Galle Manda gaa yaa ngi ci biir di ko jëli euh, mis euh, Mr Kex nan nga gisee ni ñu ngi gaal la mandat yegg si fi rek euh, bi 7:30 pm jote nga gis di welcome bi nga xam ne jox nañ ko ko lii moo nekk di am throughout di di Caravanto tey lan ngay waxaat waa Galle Manda. waa jërëjëf xanaa kontaan rek gis daw yi Ah, lii yëpp soo ko gisee ay eighteen a above la ñoo yëpp ah, teew ñu ñëw di ah, teeru PDOIS leadership bi a di wa wax Halifa affaire bi yow la loolu wone na ne xale pare nañ pour jël PDOIS xale pare nañ pour moomee PDOIS xale gom nañ message PDOIS xale yaakaar nañ ne ne PDOIS mooy parti bi boo xam ne moo leen mun a jox luñ bëgg soo gisee yii yëpp ay ndaw yi lañ ñoo xam ne ñu ngi yëngatu si anam bu rek anam bu yëpp loo munta xalaat rek ñu ngi si yëngatu loolu wane na nag ne xale pare nañ pour jël PDOIS te yaakaar naa ne ñi yëpp dara yóbbut leen du xaalis du dara bo dañ gom ne kii mooy parti boo xam ne moo ñu mun a génne si coono bi moo leen mun a génne si injustice bi moo leen jaaxal seen ñaaxute loolu moo tax gars yëpp ñu ngi bootu si gannaaw PDOIS si gannaaw Halifa Sallah lii lii lañ daan am rek jamono bu nekk rek dëkk buñ dem rek lii la am ah, dëkk buñ aaga rek lii la ñooy am ah, jigéen ñi bokk nañ si bi fu mu nekk nii léegi gaa jël nañ géew bi fu mu nekk nii léegi affaire bi jakkase na góor a jigéen xale a ndaw ah, ñëpp a ñëw gàlle man naa lañ nekk nii jërëjëf. jaajëf euh, Keks gis nga Khalifa wàcc na euh, rek euh, gaa yi ngi koy topp ñu ngi di dox gis nga kooku ki doon wax mooy Keks Sané bokk rek ci PDOIS. moom moo doon wax noon gis nga rek xalifa ngi noonu gaa ngi ko topp diko ko di ko di wane seen kontante bi ñu am ci moom xalifa moom mi ngi dox rek ànd ci di ñëw ngi noonu rek gaa ngi ci yéen a ngi dégg rek ni ñu koy euh, tàccoo di ko di yuuxu turam xalifa xalifa ñoo ngi nii PDOIS system change Karabanto 2021 day 5 Gambian Talents TV di leen woon lépp lu fi am ni ki niñ leen ko diggee woon rek defe naa dara rëccagu leen ci ba ñu tàmbalee baara Banjul dugg ci fii yëpp since day one ba tey di day 5 ñu ngi leen di jox lépp di leen woon lépp te nii lañ koy continuer di defee ba mu jeex takk dara du leen ci rëcc ma bàyyi leen rek ngeen seetaan gis ambiance bi xool ni ñu koy wel welcome ngeen ngeen dund ko moo ngi noonu gis ngeen. jaajëf tey nan nga gisee ki nga xam ne moo di Khalifa Sall ñëw fii ci Galle Mandaye. waaw si mu ngi neex rek wala neex nañu trop trop trop sax pour mu ñëw fii waaw ñu ngi ko bëggoon trop trop pour mu ñëw fii defi nañ lii. Ah, jàpp nga ni xalifa mooy ah, candidat bi gën ci ci Gambie. waaw waaw loolu moo tax ñu topp ko sax waaw ñu ngi ko ku Gambie rek moom la ñuy topp waaw koo xamante na jëriñu Gambie ga moom nga topp ba sonn rek doo am dara rek. balaa loolu noonu da nga bàyyi rek nga topp koo xamante ni am na jëriñ waaw loolu moo tax ñu topp Khalifa waaw soo gisee ñu sonn lii nii du pour pour que Gambia rek waaw pour mu dem kanam loolu moo tax ñu bëgg Khalifa te moom defe naa ne ku ko topp moom il faut ah, ah, yàlla baax na daal waaw loolu moo tax ñu topp Khalifa waaw yaa gis gars yi ni ñu dafay ah, fii tey ci Gale Manda nga gis nit ñi ko bi nga xam ne jox nañ ko ki nga xam ne mooy honorable Halifa Sallah tey jii ban yëg-yëg nga am ci loolu. dëgg-dëgg xanaa kontaan bu rëy. kontante wu rëy parce que youths yi léegi fu mu nekk nii dañuy eewu youths yi dañuy eewu youths yi xam ni luñ bëgg a def te xam ni ne léegi naaxatee dafa passé parce que youths yi léegi luñ gis ne mooy ku lay mën a dimbale amul kenn ku lay mën a dimbale ku dul Halifa Sallah Halifa Sallah rek moo mën a jàppale youths yi ñu gis ne ne naxaatee ak wax tekkee yooyu yëpp amul solo léegi fu nekkee lii am solo mooy wax góor gu nga xam ne ne day wax te lu mu wax am na si xam-xamam te li mu wax daf ko wóor te li mu wax ne pare nag pour def ko te Halifa Sallah pare na jàppale góor ak jigéen ndaw ak mag yëpp incha allah te gale mandat one nin ko lum lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm gale mandat one nin ko pare ni jàppale Halifa Sallah te incha allah 20 2021 4 December wii Halifa Sallah la ñëw wii Sallah wii Sallah yaa ngi dégg noonu mbégte bi nga xam ne waa Galemanda am nañ ko ànd see ki nga xam ne rek moo di xalifa Sall yaa ngi dégg euh, ñoom parti militant si li nga xam ne ñu ngi ko nekk di wax euh, di yóoxu ki nga xam ne mooy Khalifa di wax ne euh, moom moo war a ceeñ Gambie moom rek moo war a ceeñ ki nga xam ne moo di Gambie ku baax. yee asalaamaaleykum Khalifa Sall. Alaaji Moussa Mbaye. tey ji ñu fekk la Galemanda. waay nga ànd xalifa Khalifa tey lan nga yëg. waaye maa ngi yëg obaloo rëy rëy rëy si toll sax mënuma la ko nekkoon donc yéene nañ ko mu nekk président bi incha allah si daraja yonent bi muy wax wàllu système change e yow système change bi lan nga si lan nga si jot xam waaw lu ma si jëkk xam kay mooy nu mu demee sax dafa doy waar ndax kenn mënu koy wax doona loo xam ne nii kenn mënta xalaat ba mu sotti lu dul ñu ngi si parce que xalifa jàngis la te bu ëllëgee jàngis lu mbat jëriñ doomu réew mi la loolu daf ñu neex torop torop torop bi si tey depuis ten lañ jóg ba léegi kaw yoon bi di leen di traay depuis ten thank you man ndax am ngeen yaakar ren ne li ngeen yaga di bëgg ngir khalifa nek president am ngeen ci yaakar ren. ren la gëna neex ren la gëna neex parce que soko selo depuis depuis depuis nga eeg montagne bi ba légui yaa gis fas ak machine yi ak nit yi yob la la wax li ñew khalifa moy yaakaru aduna khalifa dégg nu ko boy di waa Non non non non non, Eh, gis nga yuuxu yi ak ni ñuy ah, tàccoo yaa ngi dégg am ci moom yaakaar ne moom moo war a mën a soppi li nga xam ne moo di Gambie. man maa nekk fi yi. yaa wax système change système bi système change. ah système bi maa fi nekkal PDS. maa leen fi taxawal système change système change. yaa ngi dégg. yéen système change système change. yaa ngi koy dégg yaa ngi koy dégg gars yi noonu di yóbbu système change système change ñoom ñëpp loolu lañ nekk rek di yóbbu. système change di Gambia nan ngeen gisee Gambia. système change Gambia. kan moo mën a change système bi. Khalifa Sall Khalifa Sall système change Galle Mana ndax yaakaar ngeen ne moom bu ñëwee dina change système dina ko change bu soobee yàlla dina ko change moolu ne dina ko change yaakaar ne dina ko change soobee yàlla dina ko change waa gis nga ñoom ñëpp ñu daal rek di wax ci ki nga xam ne moo di honorable Khalifa sàlla yaakaar nii moom moo war a mën a change système bi ah, koo ci jox mi mic bi rek loolu lay wax ah, système change yaa ngi koy dégg fii nga xam ne moo di Gale Manda ah, Gambian Talents TV ànd ceeg yéen di leen jox li nga xam ne rek mooy xew fii ci Gale gis ngeen bañ fu duggee li nga xam ne rek jox nañ ko di ko yuuxu di ko wéyal Khalifa yow gis ngeen rek ñu nekk di demee fii ci fi nga xam ne rek moo di Gale Manda bis bi duggee ñu ngi fi duggee rek bi juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri boobu rek gis na rek ni demee gaay ngi fi noonu rek noonu rek lay ngi yuux gis ngeen di xew ci kanam it sama caméraman mi ngi leen koy wan muy Hassale Diatta di def liggéey bu mucc ayib Gambian Talents TV di leen wan lépp loo xam ne mi ngi fi xew ñu ngi yéexu turu ki nga xam ne mooy Khalifa di système change gis nga waxtaan yu ñu jot a ndaw yu fi nekk dégg ngeen li ngeen xam ne ñoom lañ leen wax gis nga ñu ngi nuyoo mooy noonu gis nga. lan nga lan nga. dégg nga dégg dama surprise bu baax a baax bu mu génnee toom bi bu mu génnee gunge gunge ñu ne fii la am. mu cross dem Mbara ñu em mu dem euh, Badibou ñu la em mu ñëw Sierra South ñu ne fii em Sierra North ñu em mu ñëw Jalla URR ñu mu ñëw CRR gis ngi nax la Woot ñu ne fii la ñu jógee foofu ñëw em wallahi kale man de nee woot yëpp munu leen dara man maa leen mun waaye moom bu si gën a neexee rek nga ne bii la macha allah bu si a neexee rek nga ne bii ñoo def lii

jigéen ñi génn nañ eh, gis ngeen rek moom demee fii ci li nga xam ne mooy eh, gàll mandat rek eh, gis nga ni nit ñi génnee gis ngeen rek mbooloo mi nga xam ne moo koy fi xaar di ndaw rawatina jigéen ñi sax ni ñu fi nekkee di xaar Khalifa Sall ko ci dëkk dëkk micro li mu lay wax système change ndax ñoom jàpp nañ ne système bi xalifa Sall moo ko war a change loolu rek lañ lay daal di wax su ko defee nañ leen wane leen lépp loo xam ne mi ngi xew fii lépp lépp lépp lépp lépp nga xam ne mi ngi xew fii ci eh, Galle Manda fii ci Siarar eh, bokk rek ci Siarar eh, gis ngeen rek lu xew fii Galle li nga xam ne moo xew fii mosuñu koo gis xool leen mbooloo mi nga xam ne ñoo teeru ki nga xam ne moo di xalifa Sall lii nii jéggi na dayo waaye defe naa ne yéen a koy gisal seen bopp Gambian Talents TV mi ngi leen di wan li nga xam ne moo xew fii te lii Caravanto la boo xam ne tukki doxin nemmeeku la ñëw rek saafonte ak gars yi Euh, euh, su ko defee daanañ fi ñëwaat loolu moo nekk di am fii dañ leen di bàyyi wan leen li nga xam ne moo di ambiance bi euh, du ñàkk xalifa am fi si sport meeting maanaam dénk leen ay kàddu su ko defee loolu dinañ leen ko digtal ngeen daal di ko rek xam waaye laata loolu balaa loolu dinañ leen jox ki nga xam ne mooy Kek Sané mu daal di rek sànni ay kàddu ci lii balaa rek ñuy daal di jéem a dugg fi nga xam ne xalifa foofu lay jéem a kii Mister Sané Euh, su ko defee rek ñu joxaat la kàddu gi nga xool li nga xam ne mooy xew Galle Manda ni ndaw ñi ñëwee nu jigéen ñi jógee dal di teetu ki nga xam ne moo nekk euh, leader wu euh, fi nga xam ne mooy di PDOIS. E. waaw jërëjëf ah, lii moom ah, kontaan la ah, fu ma nekk nii su ma buggee wax sama jum ndig nit lu ma gis ñu feeñ a ñu ne dañoo ñëw teeru PDOIS e. li wone na ma ne ndaw yi pare nañ pour PDOIS e. nit yi pare nañ pour PDOIS te PDOIS pare na pour nit li kontaan macha allah gis nga xale yi depuis si bi a ah, mag yi jigéen yi góor yi ndaw yi ñëpp a feeñ a ah, ñëw di teeru a ah, PDOIS leadership bi li wone nañ la ko lu ma la koy waxee rek xale pare nañ jamono PDOIS jot na te incha allah 2021 wi PDOIS mbaali mandinkolu mfele janga siyara south lestat a galle man la sate kono mbe wolto alhamdulillahi mo men findita sembo warta usuka furunke dindin keba be findide tolni kontonol la hey momen fildede ya sembo wata wayantande bidi wasla kuma kamoɓe moy kanne mol ya moyle mol son tala e pare tala ndu be jikirin ko si bonde sibonde kole koleya kono a bonde toro kono a si na nanna meana koye si kontan alhamdulillah nya hada mumen je 2021 wew pdws la barakal mo kende jaayef de nga kooku mooy keek saane gis nga léegi nag eh, dañuy daal rek dugu fële ngir xol lan moo fay xew eh, top len ñu rek fii Gambian Talents TV dara du leen rëcc si li nga xam ne mooy xew fii. waaw yaa gis rek euh, Khalifa ngi taxaw gis ngeen nu ko gars yi wëree nii ngir rek fii la war a amalee li nga xam ne mooy waxtaan bi nga xam ne waxtaanum dénkaane la rek euh, bu mu war a bi muy def ci muy ñu koy wax sport meeting gis nga mbégte yi nga xam ne gars yi nga koy euh, joxe ñoom yut si euh, waa euh, Galemanda di fexe rek di xool di déglu nag ki nga xam ne moo di honorable Khalifa Sall ban message rek la am pour waa Galemanda ginnaaw teeru bu réy bi nga xam ne teeru nañ ko ko ndax boo xoolee depuis ñu jógee fi nga xam ne moo di jaar fi ñu jaar yëpp ba fii nii si Galemanda gis ngeen teeru yi ñu koy jox waaye teeru bi bokk na ci teeru yi nga xam ne moom Khalifa Sall du ko fàtte ndax teeru nañ ko fi teeru bu rëy ci li nga xam ne rek moo nekk di di am fii nii ci Galemanda gis nga nag xalifa mi ngi taxaw Euh, di xaar askan waa ngi yuuxu di tàccu di yuuxu ki nga xam ne moo di euh, Khalifa Sall euh, ndir mbégte bi nga xam ne rek am nañ ko ci moom gis nga rek nu mu nekk di demee yuut si ñoo fi nekk ni ma leen ko waxee woon lii daal moo nekk di xew fi nga xam ne mooy gàlle manda ginnaaw ba ñu fi duggee gis nga rek gaa yi ngi gaa yi ngi wane seen mbégte gaa yi ngi wane seen xarkanam gaa yi ngi bég lool si ki nga xam ne moo di Khalifa Eh, gis nga rek mbir mi demee xam naa du ñàkk ñu jéem a jël ay ñenn ci nit ñi waxtaan ak ñoom eh, balaa rek eh, kii mic bi nit ñi ndax gars yi war a xaar li nga xam ne moo di mic bi noonu rek la de. Khalifa affaire bi yow la. Khalifa honorable Khalifa Sall. ah nan nga gisee Khalifa Sall. dégg nga yàlla jël réew mi yàlla jël yàlla jël réew yow nan nga ko gisee. non jox ko gis non jàmbaar. waaw gis nga ñoom dañoo wax tey nan nga nan nga gisee ki nga xam ne oh, moom. macha allah macha allah moom yaakaaruñu ci ku dul Khalifa Sall ndax xam nañ ne moom rek moo mën a débloquer réew mi quoi ñi nga am kontaan mbégte bu baax baax baax ci nu mu ñëwee gàllama ndax fii rafetlu nañ ko bu baax a baax merci beaucoup ah. ngeen jox teeru ngeen teeru ko teeru bu rëy teeru bu jéggi Euh, lan la leen euh, lan ban euh, kii gis-gis ak yaakaar ngeen am xalif ci Khalifa Sall ba yéen ndaw ñëpp ngeen génn daal di koy teeru fii si Gallamandax. macha allah macha allah waaw Gallamandax fii wax dëgg yàlla ñun ndaw yëpp ñoo leen teeru Khalifa Sall ndax taay muñ toll nii Khalifa Sall rek Khalifa Sall la leen jàpp na moom rek lépp lu fi yàqu moom kenn moo koy defet ndax yàgg nañ fi Gambie trop waaye lépp lu fi yàqu rek moom leen dégg monsieur di wax ay kàddoom di wax kàddu yu moom lañ leen moo ñu moom la leen ko ci réew mi torop asalaamaaleykum wa rahmatulah jaajëf ñu jàll rek si keneen ku baax ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay waay tur bi naka la ah man Bamba laay la tey ñu gis leen ngeen jox teeru bu rëy a rëy ngeen jox ko ah, honorable Khalifa Sall ah, ban yaakaar a gis-gis ngeen am ci Khalifa ba yéen waa Gale daa ngeen génn jox ko teeru bu rëy a rëy bi waaw am nañ ci moom yaakaar bu baax ndaa dañ doy nañu daal doy nañu am nañ si moom yaakaar li moo tax tey mu jaral ñun ñu dem wàcc dem jëm ba waay bi ke di ko tàcc foofu noonu dañ am si moom yaakaar ndax moom lu ñoroo xale yi rek ngéew mi rek moom loolu moo ko am solo loolu moo tax ñu am solo ñun tam ah, suñu carte daal moo ko moom incha allahu rabbi bu soobee yàlla wax système change système change mhm, ah, ah, bi ngeen bëgg change ndax fi leen système bi leen xalifa di wax mooy système bi gën waaw waaw système muñ bu ñu wax nii waaw boobu moo gën si ñun moom itam ndax doomu aadama boo bëggee nit ñi bëgg réew mi rek ñun moom bëgg nañ la ku bëgg réew mi rek loolu lañ bëgg incha allah kon pare ngeen pour votre système bu soobee yàlla incha allahu Babacar tey ñu fekk la fii euh, nga bokk ci teeru bi nga xam ne ñu ngi koy teeru honorable Khalifa Sall tey euh, ban gis-gis ngeen am ci moom ak yaakaar boo xam ne ci wàllu politique waaw euh, boo leen gisul si yeneen politique yi ba tax ci yeneen politiciens yi ba tax ngeen topp ki nga xam ne moo di Khalifa Sall waaw Khalifa ñun lu tax ñu bëgg ko moom dafa ñemee dëgg te gis ne daal bi nga ko joxee réew mi daal foog ne daal dana ko mën a amee te bëgg nañu mu ceeñal ñu système bi daal te système bi daal wóolu ne ko ci trop pour mu ceeñal daal réew mi time bi dafa woo fa métti sax te mu ceeñal ñu réew mi bu baax a baax moom moo tax ñu bëgg ko sànni sin karta yi na loolu leen bëgg si Halifa Sallah yee ndax jàpp ngeen ne système jàpp bi mu wax mooy système bi gën waaw système du deñ du deñ du deñ du deñ da incha allah dana ko lu wax dëgg waaw dégg la loolu moo am loolu moo am parce que bu boo seetloo bu coow amee moom la ñoo wax moo ñemee génn léegi temps bi bi diinu mooy mooy loolu maa su coow amee kenn duñ oo kenn Khalifa Sall la ñoo wax mu génn parce que moo ñemee dëgg bi ah loolu la ñu loolu lañ mën a gëm parce que léegi dañ bëgg mu change système bi you know yeah jaajëf gis na rek gars yi liñ nekk rek di wax ci nga xam ne moo di Khalifa Sall ne moom moo mën a jàpp moo war a mën a change système bi si système bi nga xam ne moom la réew bi di nekk ci ñoom li ñu wax ne ki nga xam ne moo di honorable Khalifa Sall moom moo ko war a rek mën a change ci loolu la su ko defee dañu demewaate eh, ci beneen boor bi daal di jël ñoom ñëpp ñi nga xam ne eh, ñoo nekk eh, di wax rek li nga xam ne mooy Khalifa Sall loo wax système change système change système change su ko defee rek ñu continuer waaw ku baax ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ñu ngi lay fay njaat gi. tur bi naka la. wéy ci baan bëgg baa ñas tey ñu fekk la fii nii euh, nga nekk di teeru ki nga xam ne moo di Khalifa Sall tey jii ban gis-gis ak yaakaar euh, moom nga gis si parti bi di euh, PDOIS Khalifa Sall jiite ko boo gisul si yeneen parti ba tax mu jaral la nga koy topp mu jaral la nga ngeen teeru ko teeru bu rëy bi. waaw li sabab loolu mooy ñun ñun xooluñ ku ñu neex li ñuy xool mooy borom xam mu bu mën a yor réew mi. Khalifa Sall gis nañ ci moom dëgg joo xam ne nii ak xam-xam boo xam ne nii ak maanam qualité boo xam ne nii loolu moo tax ñu topp ko bëggal ko suñu bopp te yàlla na ko yàlla jox réew mi ñun moom lañ bëgg si moom. yaakaar ngeen ni parce que koo laaj def na la système change système système change ah système bi nga xam ne moom la leen Khalifa Sall di ah di proposé ndax jàpp ngeen ni mooy système change ah bi gën si Gambie boo xam ne bu ko Gambie doxee dina dina dina gis boppam ci beneen anam. waaw gis nañ ne maanaam bu tey dem nañ ba système change bi am yàlla nañu ko yàlla may système change bi am bu amee loolu mooy li ci ñun mooy mooy li ci ñëpp parce que dafa nekk lu nga xam na nii te mooy mooy li ci réew mi it parce que dafa nekk lu nga xam ne tey bu fekkee maanaam système ceeb amul système ceeñ amut du baax si ñun kon yàlla nañ yàlla may système ceeñ mu mën a baax si ñun baax ci ndaw ñi baax ci mag ñi baax ci ñëpp. système ceeñ boobu kan moo leen ko mën a euh, jox. Khalifa Sall ci boppam moo ñu mën a jox système ceeñ boobu ndax moom moo yor xam-xam bi. moom moo yor dëgg ji moom moo yor fulla ji moo yor fayda ji kon Khalifa Sall yàlla na ko yàlla may réew mi. soxna si soxna si soxna si ñu ngi lay nuyu. kenn ku ne si turam. tur bi la. man na aja toob gàlle mandat. Ah, tey ñu gis gàlle mandat Khalifa am fi benn ah, ah, welcome bu bu jéggi dayoo maanaam nit ñi teeru ko. Euh, jëlee ko fi nga xam ne mooy ci kaw taliba ba ci biir dëkk bi euh, tey euh, lan ngeen gis si ki nga xam ne moo di xalifa Sall loo leen gisul ci yeneen politique yi ba tax ngeen jël lépp seen doole seen lépp jox ko Khalifa Sall ba pare jox ko li nga xam ne moo di teeru bu rëy bi ngeen ko jox fii. mooy fi mën a génnee coono bi ndax système change la wax système change dafay change lu bari dina génnee coono ndax léegi ñun yàgg nañ ci coono bi te coono bi Khalifa rek moo si mën a génne Khalifa dong moo ñu mën a génne si coono bi coono bi yàgg na trop. léegi suñ joxee ak mi nga xam ne ni mooy Khalifa Sall di doy coono bi dana jeex waa jàpp ngeen ne euh, système change bi muy wax maanaam système bi fi nekk baaxul ci li nga xam ne ñoom loolu la ñu wax léegi système bi nga xam ne moom mi ngi leen koy euh, wax ndax jàpp ngeen ne système boobu mooy gën système bi nga xam ne euh, fi ngeen ne nii. moo ci gën. parce que système change bi boo gisee muy système change xam nañ ne coono yu bëri na trop na moom rek moo ko fi mën a génne système change bi njëriñ lañ ci gis taraanga lañ ci gis tay lañ ci gis ak suba ak loo suqale ndaw yi ak lu suqale réew mi. waa Galle Manda lan ngeen di wax ki nga xam ne moo di Khalifa Sall. di ko sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla yàlla may ko per bi ñu bañante ba ca pale ba te dara jaay yónni. ndax am ngeen yaakaar ne ren euh, dina nekk atum euh, euh, pido PDOIS. système change atam système change ci PDOIS laay dox ndax coono bi ci dëkk bi. xam nañ ko li mooy dund si réew mi xam nañ ko li ñeneen di dund si réew mi xam nañ ko moo ko fi mën a génne kon dana jot réew mi système change mooy amee Gambia ren ci kàttanu suñ borom. wa yéen waa daa système change ngeen wax. waaw waaw sëñ bi loolu lañ wax système change lañ wax. nuyu nañ la bu baax. ah nuyu nañ la. fay nañ la bu baax. tur bi am Amath Gaye. Amath Gaye ñu fekk la fii. Eh, gis nga nga ñëw ci mbooloo mi ni mu jégee dayoo yow ñu fekk la fi ah, tey li ma laaj ñëpp laa lay laaj rek ah, ban yëg-yëg yow nga am ci ah, PDOIS ba tax mu jaral la ndax gis nga guddi na mu jaral la nga yàq say nelaw wala say yeneen yitte ngir ñëw rek teewee li nga xam ne mooy ñëw Khalifa Sall fii ci Galle Manda ban yëg-yëg nga am ci loolu. du ma sori ci loolu dama la wax rek ne su fekkoon ne nit ñi am nañ intelligent konoon coono yi nekk ndax duñ ci nekk keroog ñu seere ko ba mu dog wis ba amul kenn ku ko tekki xalifa yi moo ko doon tekki ñun keroog bañ demee ba xam ne dëkk bi ñiy tëb di ñëpp ñu ngi seen taabali seen téléphone yi fay ko seen kër yi ñu tëj kenn ñi mu do génn xalifa lañ daan jëlee ñun xibaar xalifa nee na yaay jàmme nee na xalifa nee na CEDEAO nee na nii kon lii ñun buñ ci amoon gis-gis bu yàgg nii ñi bi ñu ñun konoon jëloon nañ réew mi teg ko ci loxol xalifa mu jaaral leen fi ñu bëgg a jaar te xam nañ ne te xam nañ ne ñun dañoo dañoo diig diig nañ ba pare te ki ñu mën a suqali mooy xalifa Sall fii la waaye Sall moo ñu mën a génn lii moo tax ma dagg sama yëf dagg sama yitte topp xalifa gàlle mandat nag tey dama ci am beneen contentement beneen content bu ma ci am tuuti woon nañ fi dee woon nañ fi waaye dëgg moom du far mu ku bëgg dëgg rek ku doole man moo dëgg ak loo mën taam rek doole dëgg moo mën doole lii moo ci nekk lii tax ñu topp xalifa te di ko ñaanal at mii bu ñu àggee ci ba ñu ne wiiw xalifa sal lii lañ bëgg lii mooy suñ bëgg-bëgg lii mooy suñ yéene te ku ñuy waxal loolu lañ lay wax yaakaar nañ ko doy nañu xam-xam bi matee na ko mànd gi matee na ko kerte gi matee na ko ngorom am na du lekk alali kenn jàpp ngeen ne sistem bi mooy mooy système bi gën système bi mooy bi mën a yóbbu réew mi fi ñu mu dem Ah, jaajëf gis nañ leen rek ñoom ñëpp li ñuy wax waa Gale Manda ah, jàpp nañ ne ñoom système bi leen Khalifa Sall di wax mooy système bi nga xam ne mooy système bi gën ah, noonu la ñu ngi fii ci Gale Manda di séq waxtaan ak ñi xam ne mooy waa askan wi léegi tey xam naa da am waxtaan kaddu ak ki nga xam ne moo di Khalifa Sall ak ñi nga xam ne ñooy waa Manda noonu rek la ñuy def bàyyi leen ngeen dundu li nga xam ne moo di ambiance bi xaar tuuti li nga xam ne mooy Khalifa Sall dàmpale li nga xam ne moo di mitin bi mooy sport meeting boo xam ne dina ko amal gis nga mbégte mi nga xam ne ñoom ñëpp am nañ ko di bànneewoo ci li nga xam ne mooy li euh, système change te di ko rek wax ak caravane bi nga xam ne saa mi ngi koy amal jomono ji noonu rek lay demee su ko defee Gambian Talents TV ngeen ci àndal dara du leen raw ah, dinañ leen wan lépp loo xam ne xew na fi xam naa ci kanam tuuti mitin bi dina tànn bi li ah, ndax mitin bi du meeting sax mitin ni ñu koy xame ay ah, rally waaye meeting la boo xam ne sport mitin la dañuy toog mu dénk leen ay kàddu yu néew waxtaan ak ñoom saafante ñoom daal di jàll ci dëkk ba ca des lii moo fi amagum dinañ leen wan lépp loo xam ne am na fi ci kanam ngeen ànd see Gambian Talents seen xarit Mouhamed Mbaye Garmi ak Xasaali Jaata caméra maanaam amuñ baat amuñ doole ñu ci seen gannaaw rek di wéy ca gannaaw seen gannaaw di wéy ca gannaaw ñu seen gannaaw di wéy ca gannaaw ba nga dugg ca pax te ñu ne ñoo moom ci ñaari fan ci weeru décembre ki ëppoon doole ñëpp ëpp alal ñëpp jël téléphone am di téléphone boo xam ne kenn xamu woon balaa moo taxaw wat dégg la. ne ko jébbal naa la góor gi seen baat mu mel ni bés booba doomi Gambie bu nekk waroon naa dóor dënam ne fi mu nekk ni xam naa ne am naa baat am naa doole ci suuf man maay fal du fol su fol bi la war a nekk fal ci la war a nekk bés bi ñu toogee nii di waxtaan li ngeen war a bàyyi xel mooy nit su xamul ki mu doon du xam li mu moom su xamul li mu moom keneen moo la ko bokk moom mu ñàkk ko ba nekk ci kaw suuf lan mooy jaxanama ci kaw suuf mooy nga dugg ci coor màggee ci coor màggee ca coor waaye sa doom ci coono bu dee ci coono set ci coono bu dee ci coono luy sa njëriñu dund ci kaw si. coono googu nag moo tax muy waxtaan ndax yow soo xamul li nga moom kooku su ko moom mënee boppam moom mu nekk ci àjjana ci kaw suuf yow su ci yow nga laaj ko football nga ñëw ci yow nga laaj ko attaaya. mu ñëw ci yow nga laaj ko euh, Tijaan mu ñëw ci yow nga laaj ko euh, Sakku Maalo mu ñëw ci yow nga laaj ko Sakku Suuf mu jox la ko su la ko joxee ba pare yaa ko dégg ak ci sa néegi coono. li ngeen war a laaj mboolem kuy laajte bu dënk ko réew mi mooy su fekkee ne dënk ngeen ko réew mi naka laa dàqee seen coono naka la dàqee seen coono njaboot naka laa dàqee seen coono sët loolu lañ ko war a laaj. baax na nag ngeen déglu ñu xam coono bi lu tax mu nekk ci réew ak naka lañ ko war coono gi nekk ci réew li ko waral mooy doxalin dafa am doxalin bu yokk coono ak doxalin bu mën a génne coono doxalin bi yokk coono mooy doxalin bi gën nekk lu ko waral kenn ni moo doxee noonu la réew bi doxee kenn ni moo doxee noonu la dëkk bi doxee

amul benn dëkk booy dem ci suufi Gambie mu am kees réew yi nga xam ne jëm na kanam yéen dëkk dëkk fii nag yéen jigéen yi nga xam ne yéen a ngeen laajte ay machine walukaay yéen ndaw yi nga xam ne yéen a ay football ak football fii na yéen yi nga xam ne yéen a ngeen laajte am foo leen a wootee mu yomb ci yéen yéen ñi nga xam ne yéen a ngeen laajte lamp yi dëkk bu baax fan la waaw ñu ne daan na ci boppam dafa war a am aram kees ndax mu mun a yore yenn dépassam yi ndax ndax fii mun a jëm kat dépasse bi fu mu war a jógee moom ne naa ne fay yëpp dañ ko war a ci kees yi gàlle waru fa dem ca yéen a fay naamu dafa war a nekk ci seen kees ci dëkk su fekkee ne am na tool boo xam nit ñi mënuñ koo béy mun nañ koo ëlbati def ko tool yi dikk nguur joxe engrais nguur joxe jiwu nguur nguur joxe machine ñu béy ko jaay ko xaalis boobu ñu dugal ko ca keesi dëkk ak yeneen ak yeneen ak yeneen su ko defee ak mu nekk dinañ seet ñaata ne ko ca keesi dëkk suñ demee ba ne lii su ko defee nag. DDC bi dina toog ak waa dëkk bi ñu ne ak ñii day liñ soxla mooy ndox mu baax ndox mu set léegi bon nag dinañ samp boo xool la ci xaalis su fekkee nag xaalis ba mat na ko ñu def ko su xaalis ba matu tunda bi itam dafa war a am kees région bi dafa am kees réew mi am kees su ko defee tunda bi mun na laa dimbale pour nga mottali doxalin boobu su ko tunda bi mutul région bi mu tënk su ko mënul réew mi mu tënk juróom fukki at ak juróom benn su fekkee ne nii la dal na doon doxee at bu nekk nga defal leen at bu nekk nga defal leen juróom fukki at ak juróom benn naka la dëkk bi war a mel. loolu la ñu ooyee système ci mais dafa leen di fi nekk dafa leen kees. amuleen aran kees moo tax dëkk bi dellu waa waaye su fekkee am ngeen dëkk boo xam ne am na aran kees dinañ seet ne football field bi dinañ ko war a defal gas yi dinañ ko jëndal suñ suñ suñ suñ suñ suñ a defar loo xam ne lii mooy fi ñu dëkk def ngeen koo rafetal lapitaan yu ndaw school yu ndaw lii yëpp dëkk mun na lii moo tax réew mi nga xam ne jëm soo fa demee doo mën a ràññaale fuy kaw bi ak fuy teew ndax yëpp dafaa jëm ñaareel bi mooy nit wara war a dimbali ci dëkk yéen ay béykat ngeen ñu dem nañ sànjaal di fekk ay jigéen ñu di bay ay tamaate doo ko mën a jaay wala amul fi ko a yàqu ci seen suñ nekkoon ci réew mi bëri mu ngi mel ni war nga xam ne dina ñëw jënd tamaate boobu ëllëgati ko mu nekk tamaate lu xam su ko defee suñu doom yi dinañ liggéey ca facture yi jigéen yooyu duñ amati di enu tamaate boobu di ko jaay facture yi dina dem ci seen gaax di ñu ko ci ñoom ci ñëpp nga xam ne ko su ko defee seen am-am gën di yokk te am nañ place boo xam ne suñu doom ci mën a mooy xew ci réew yi moo tax suñu doom di jógee fi mu dem uti lu bëri ci réew te mën nañu boole fa suñu a ngi naan maalo bi seer yéen a ngi naan diwlin bi seer la waaye da ngaa jëndee ji bitim réew di ko isi naka laa mën a wàññi ko yaa ko war a liggéeyal sa bopp maalo bi yëpp mën nañ ko bay fii ci suuf diwlin bi amoon nañ ci bi nga xam ne dañ daan jël seen gerte gi xamati ko mu nekk diw wante dem nañ ba kasaaraan place bi war ba xam ni moo tax ngeen nekk ci coono bokk na ci doxalin ngeen a génn ci coono mu mel ni yéen béykat yi yéen ñi nga xam ne yéenay béykat ni walal ngeen nekk ci coono xam ngeen ne suñ léegi gerte ci Sénégal wala Chine ici wala suñ ko waxee di nga gis ne Sénégal la ngay jëndee lii Chinese yaa ngi jëndee lale ci réewi Gambie lale lu ko waral da benn maam si àdduna si loolu lu tax loolu mooy ne si àdduna si dafay juróom fukk ñoom ñu jëndee ko ci béykat bi fukk ak juróom ñaar fukk ñaar fukk ak juróom ñaar dafa am benn moo waa ne mu ngi mel ni fekke ci ñàkk béykat bi la ñoo jëlee seen at ñene dañoo gën a jël li gën a ëpp ñene wàññi li ñoo jël waaye ñëpp a ñoo jël moo tax béykat bi mu da am dara mën a ko ci bon nag suñu naree wécc ci loo dinañ fexe njëgi gerte ci marché adduna si dinañ ko yëgal béykat saaku yi ak li nga foog nga jëlee gerte gi da nga ko yóbbu mu dem ci marché ak des wala su passé loolu alal jafe des yëpp kenn ci am bénéfice ñëpp dafa war a demaat ci poche bi béykat ci loxo bi loolu mooy ci su ko defee béykat boobu dina nar a denc ci ñu ne béykat boobu pour dimbale ko amoon nga ji coopérative wala coopérative bi fi amoon dafa dem jël ci banque daal di ñëw lebal béykat moom mu ngi ca soxla bénéfice banque ba itam ca soxla bénéfice bon nag su fekkee ne béykat daa ngay fay bor boobu mu ngay fayale bénéfice moo tax béykat yi ñu am dara su fekkee ne réew dafa war a paree dimbale béykat li nga xam ne moom la mooy ci keesi nguur dañ fa jël alal jox ko béykat muy engrais muy jiwu muy machine mu liggéey dal di fayaat li ko jox. doo teg dara loo xam ne la ci boppam soo defee loolu nag mbéy mi dafa daal di naat. loolu mooy boppam li nga xam ne mooy dàq coono ci nag wax bi yéen a ko moom gis ngeen ni mun a dàqee coono te bunte yu bëri na te suñ ko amee rajo bi gën a mag dinañ leen yokkal waa ne kàddu gi nga moom laa leen bëgg a bàyyee mooy ne da ngeen yore caabi yore bunt caabi bi nga xam ne moo leen a génne ci coono wala yokk seen coono bunt bi xam moo mën a yokk seen coono wala mu wàññi seen coono ngeen dégg fii bu baax. dégloo leen. caabi boobu mooy seen carte wati carte bi mooy seen baati boobu. carte OPEX bi mooy seen doole boobu soo jëlee sa per nga def ko ci kees yi la mu tekki mooy jël nga sa baati doomi réew jël sa doole doomi réew nga dal di ko dénk ko keneen ñëw dénk ko keneen ñëw dénk ko li ñu ëpp ci réew mi seen baat ak seen doole mu ëpp doole ñëpp ëpp baat ñëpp élif réew mi élif soldat yi yore kees yi léegi yéen xam kooka su del si waatee isil leen alal jooju ngeen jël tamit su lekkee alal jooju ngeen dugg ci pax pax bi léegi nag wax juróomi at su nekk ngeen jël ko bu ko fu nekk caabi baa ngi seen loxo bunte baa ngi seen loxo ñaari kër ñaari kër moo fi nekk benn kër bi mooy këru këru notel ak këru kër mooy kër kër tedd ak leer ñu jox la caabi bi de vaccine vaccine dawal vaccinated before it's too late you know i want to encourage the community uh, members um, i think I, actually also say this almost every uh, friday and juma salah that i make a point uh, sign uh, announcement and actually, I will give myself as an example, and I'll stand there and say, you know what? I know there are a lot of um, misconception and misinformation out there about the vaccine, but I can attest to you that me standing here, I am fully vaccinated, and it's been since uh, February when I got my second dose, and I'm still standing and alive and kicking <laughs> and with no problems. So the vaccine is safe, and it saves life, and um, like uh, the saying goes, and I heard you say that, you know, we are not we are not, uh, no one is safe until we are all safe, something like that, right? Mm-hmm. And I, you know, I urge and implore the uh, community members, everybody, if you are not vaccinated, please get vaccinated. You know, bring your kids, your family members from 8 12, you know, onwards, get vaccinated. Uh, I make sure in my household we are all fully vaccinated. Everybody is vaccinated and um, and we're, we're still all around without any any issues. So uh, the vaccine is safe and um, it saves lives. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated before it's too late.